Oumy Jàmm sant yéen kaay gi di réew mi quotidien ci xëlima ak Assane Sambo nee na bu garaaw bi nga xam ne moo dikk ci a la boo réew mi quotidien Assane Sambo ne en am ba des daal virus bu garaaw bi ñëw na Sénégal waaye nag war nañoo ànd akuk dal li nga xam ne moom la ñu war a mooy ñi nga xam ne ñoom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum xeex mbas mi nii nga xam ne moom lañ koy doxalee ndaw doxalin wu baax la loolee ab laaj la boo xam ne lëfa bi nga xam ne andi nañ ko fi njariñ li bariwul ndax kaa ma ngi gën di yokko te nag sunu économie bi ma ngi gën di nërmeelu li nga xam ne moo am ba desal te matukaay la yoo xam ne état bu Sénégal war nañu see taxaw mooy mesure barrières yi dañu ko war a def tolérance zéro li nga xam ne mooy mesure barrières yi képp ko xam ne maanaam jëloo mesure barrières yi ñu daal di koy diggaale ak yow bañ see am benn yox-yoxe ki nga xam ne nag moo indi jàngoro ji ci réewum Sénégal virus bu garaaw boobee moom ma nga bàyyi ko ci réewum Inde yéene kaay gi de la témoigner ñu xëy fekk fa ñi nga xam ne ñooy ay spécialiste ci lu jëm ci wàllu virus ñoom nag nee na ñëw virus bu garaaw bi nga xam ne moo jóge Angleterre daal di feeñ ci réewum Sénégal moo gën a garaaw mille fois virus bi nga xam ne moo fi nekkoon maanaam fukki junni yoon la virus bi fi nekk jamono ji gën a doy waar virus bi nga xamante ni moo fi feeñoon yéen kaay gi nee na en tout cas li am ba des ci Sénégal li ñu nemmeeku mooy coronavirus bi ma ngi ci genn wàll gi di rey accident yi ñoom tim nekk ci genn wàll gi di rey yéen gi ne na musiba ci boppam jamono ji moo dugg Sénégal ndax lu toll si ñaar fukk ak juróom benn ci ay nit ñàkk nañu seen bakkan lu toll ci ñaar ñaari fan am na accident bu garaaw a garaaw boo xam ne démb fukki nit ñàkk nañu ci seen bakkan coronavirus bi moom tim démb rey na lu toll ci fukk ak ñett yéenekaay gi ne na immeuble bu usine 3MD énergie ca xodd ba ginnaaw bi mu daanoo lu toll ci ñeent ci ay nit daan nañu sa ñàkk seen bakkan yéenekaay gi de la turbine nee na attention Sénégal ma ngi ci danger ma ngi ci giraawaal yi lay raam sañ ak ba la jëm te bu fa amee kër du baax nañu def ndànk nañu def doucement yéenekaay gi du source a nee na en tout cas li am ba des dal mooy fast track dégg dañu kaay gi di réew mi nee na ca Toubatoul école élémentaire bu Toubatoul 1 ka nga xam ne moo nekkoon directeur ba daat na ñàkk bakkanam ci woppi coronavirus am na ñaari jàngalekat yoo xamante ne ca Toubatoul dañoo amee woppi coronavirus yéen kaay gi di enquête nee na université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ma ngi toj ak woppi coronavirus ji wopp jàng nga fay jaaba jonge moo tax ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi ñoo ngi sàkku ay moyens ci état bu Sénégal lu may loolee rek musiba am yéen kaay gi du l'observateur nee na li nga xam ne moom lañ nemmeeku ci armée lu Touba yi ak armeelu lu Yoff ak armeelu Saint-Lazare yi ak dangu ca Rufisque ña nga xam ne ñoom lañ fay denc bis bu seet dafa doublé loole la ñu nemmeeku yéen kaay gi di réew mi quotidien ak libération bàyyi mbirum coronavirus gi daa di nag wax ci mairie bu Dalifort bi nga xam ne Idrissa Diallo moo ko jiite woon génn àdduna jamono ji Dalifort am na maire bu bees Mamadou Mbengue lay wuyoo ci parti bi di APR ci la bokk waaye nag li nga xam ne moom la yenn conseil municipaux yi ak askan wi dëkk Dalifort gis daal mooy dañoo wor ki nga xam ne mooy Idrissa Diallo dañoo trahir mémoire am yéen kaay gi di Sud Quotidien l'Observateur L'As enquête ñëw ci xayma bi nga xamante ni kuréel gii di Transparency International daat nañu koy def ci lu jëm ci wàllum gera ak lu soxal wàllum yorin wu baaxul natt gi nga xam ne natt nañ ko si maanaam xayma bi rapport bi mu génnee gis nañ Sénégal fa mu nekkoon ba léegi nii ma nga fa maanaam ci catastrophe zone rouge yéen a kaay gi nee na lépp loo xam ne jëm na ci wàllum impunité maanaam luubal alalu askan wi farandoo ak nguur te dara du la ci fekk ma ngi wulle ñaay ci réew mi yor justice bi di ba léegi nii ma ngi ci Sénégal yor alalu askan wi ci a feese loolee ba tey ma ngi ci biir journal bi yéen a kaay wal fajri Birahim Seck nee lépp nag Macky Sall mooy responsable yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na bu ñu waxantee dëgg maanaam fulla ak fayda bi nga xam ne état bi moom la war a def ci xeex wàllum corruption wàllum ger ci réew mi ak mal gouvernance amul benn yitte boo xam ne état bi def na ko ci yéen a kaay gi de la témoin xëy na ci wàllum dysfonctionnement yi nga xam ne gis nañ ko ci nu état bu Sénégal di doxee la ko waral mooy gouvernement boo xam ne amuloo ab premier ministre professeur Moussa Diaw nee na gouvernement bi soxla na ab coordonnateur waxuma nag ay délégué Momar Jong di ab taskatu xabaar moom li mu gis mooy Macky dafa def erreur erreur bu mag la def jële fi poste premier ministre ndax gouvernement bi bu amul ab poste premier ministre maanaam doxin wi dina yeex loola te kafuyaas beek rëq-rëq yi dana mel ni tulleeg màlle a gi xëy na ci jaari soo mi nga xam ne ñëw na ci Sénégal ma nga ci kër Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne moom la ñu ko bàyyele danañu ko yóbbu nag ci ñi nga xam ne ñooy médecin ñu defal a kaay